tey euh, ci àjjuma ji yëglekaay li ñu xëyee ak Chérif lañ ci àndal Chérif ñu tàmbaleeg l'observateur. l'observateur lañ koy tàmbalee soxna naata ak xarxanam bu sénégalais xam dem sax gën nañ koo gis jaxaran muy Karim Wade présidentielle 2024 PDS un cas grave dans le coma. mu ne rek kon parti bi ab Abdoulaye Wade jiite daal lim gën a jànkonte ki jafe-jafe bokk na kon absence su candidat am di Karim waat dinga xamante ni yàgg nañu wax ne dina ñibbëj Sénégal ba mu génnee réew mi ci atum 2016 ba léegi moo tax kon nit ñi dafa mel ne amatuñ sawarte ci wàllu mobilisation parti bi ci base bi ba tax na sax instance yi nekk kon ci rek diwaan yi tamit am ay jafe-jafe am na nag koo xamante ni moom yëkkati ni si kàddu nee na ils ont tué le parti kon mel ni euh, joxoñ na ci baaraamu tuuma les Wade ku ko bëgg cause na kon yéen yéen kaay bi yéen kaay bi ñëwaat également ci lutte contre la corruption ak kuréel yi di nag ñu dénk ko kon xeex guerre bi mu mel ni kon mandat onze membres yi expiré na ci ñoom nag am na ci ñoo xamante ni juróom lan ñooñu moom kenn mënut a yeesalaat seen mandat faw ñu daal leen di remplacer président bi nga naan mi ngi noonu kon di Serigne Bassirou Gueye et puis saisie ca port bu Dakar mel ni kon am na enquête boo xamante ne rek ci patrimoine kon. Euh, tubay yi nga xamante ne impliqué nañ ko rek ci lu toll kon ci mille trente six kilogrammes de cocaïne plan jaxaay ba léegi rek gis nga ko mu mel ni rek euh, lutteur bi di Garmi de moom euh, dafa mel ni rek tegoon nañ ko loxo rek ci mbiram. cambriolage ak wàllu sàcc ñëw également ci dossier bi journal bi def muy psychose délivrante ak stress anxiété jëm rek ci ñi nga xamante ni rek kon ay mag lan ñu daal di leen di siif muy viol boo xamante ni ay personnes âgées lañ ko jagleel Mame Gor Diazaka moom nee na rek song gen koy song ji wàllu lynchage ak tamit ñoo xam daal dañ koo jàppe woon comme ak clone moo tax kon séq na waxtaan ak yéen kaay bi di l'observateur sélectionneur national moom it di ngi ci l'observateur moom li mu bëgg mooy CAN 2024 ca Côte d'Ivoire Sénégal gañe ko. incha allah. ñu dem ci enquête. ñëw ci wàllu politique ak euh, Khalifa Sall ak euh, Macky Sall ñoom waa Thialène dafa mel ni rek ku ci nekk am na bataille ci wàllu terroir ndax moom euh, Khalifa ma ngay amal tournée ci diwaan yi fan yi sax ma nga woon fële ca Tambacounda Macky Sall tamit ma nga jëm xam naa semaine prochaine fële nga xamante ni moom mooy ca Sédhiou ba tax na rek sur le développement des terroirs Khalifa Sall mi ngi lancé défi kon président Macky Sall rawatina kon ci acte trois de la décentralisation kon nee na acte dafa bëgg rek def bilan ci wàllu collectivité territoriale awliya yeeg yu ni mel te ku ne xam na ni kon sooxe am na si bourse bourse familiale yi yëkkati na ci kàddu Macky Sall bi passé mi ngi doon sàkku ci ministre yi ñu daal di rek accélérer li nga xamante ni kon modernisation ville yi la ku ci nekk kon sa vision wax nga ko Yewwi Askan Wi seen député yi démb am na benn sit-in bu amaloon ci biir assemblée nationale ñi ngi def kon benn gestion antidémocratique boo xamante ni institution parlementaire bi moom lay jànkoon tekk ñi ngi ci joxoñ baaraamu tuuma président ba di Amadou Mame Diop et puis yi nga xamante kon ca procès Sonko Mame 17 sur 31 yi kon euh, rek euh, dinañ euh, boo sàggunul ay peine ferme lañ leen a daan. Hmm, le quotidien lu mu xëyee tey. le quotidien ci boppam la xëy ku ne xam na ni yéen kaay bi kon am na ñaar fukki at ndax le 24 février kon ci atum 2003 lañ ko sosoon ba tax na rek yéen kaay bi deux décennies am na ko 20 ans d'histoire la yenn kaay bi tuddee ñëw rek ci moment fort di journal ak péripéties yi nga xamante ni jëm ci wàllu livre d'or gis nga ko une yaa ngi ni tànn sa bu la neex la mu mel ni ay une la yu xaw manqué marqué histoire bokk na ci bi Sénégal jëlee pour la première fois kon li nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, Coupe d'Afrique beeg yu ni mel wala bii ban ko la lajjee la kan 2019 la mel ni rek allahu akbar ak VAR ñëw ci Mame Madior Boye décès Nelson Mandela Idrissa Seck ak mbiram protocole de Rebeuss Macky Sall bi mu fi annoncé kon suppression poste premier ba ci Madiambal Diagne borom journal bi bi ñu ko fi tëjee kaso mu nga xamante kon message bi muy journal boo xam ne xam na leen ci mbiram kalam rek ay titres yoo xamante ni. am solo la xam naa am na yu la ci marqué borom journal bi tam Madiambal bind na benn éditorial ci histoire yéen kaay bi nga xamante moom mooy le quotidien donc on <laughs> <laughs> xamante ni euh, moom mooy rek euh, ci wàllu agence de notation ñu ngi nag ci secteur des finance ak yu mel kii nag mooy Anour Assane directeur général CGR Rating West Africa muy ex Wara ci qualité signature Sénégal daal nee na signature bu wóor la ba tax na rek kon bonne note Sénégal da koy am et puis euh, nee na rek définition qualité ci wàllu notation muy a comme rek li nga xamante ni kon lu ama am solo la mu séq waxtaan ak yéenekaay bi di journal et kii tamit euh, muy koo xamante ne réalisatrice la neen sax mooy soxna si ko njëkk a nekk muy Safi Faye ah, ñu ngi koy yiddeeloo ndukkal bu baax a baax di ko mm. ñaanal yàlla mu yërëm ko ndax dafa génn àdduna yërekaay bi ñëw na également ci céréales local ak fabrication euh, mburu mi nga xamante ni kon mënees na koo defeek euh, li ni bayee fii ci réew mi mel ni rek am na loo xam ne daal moo tardeel mbir mi xëy na ci kanam gan gi bu ñëwee danañ ko gën a yaatal ñëw également ci entrée en vigueur baisse du loyer le premier mars la muy alarme bi nga xamante ni moom la dëgmal ministre du commerce moom moo ko wax. Mm, incha allah ñu ki mel ni kon kii di Azoura Fall ku ne xam na ni moom dañ ko placé woon sous mandat de dépôt juge huitième cabinet d'instruction bu tribunal Dakar moo ko defante ne démb nag li naan extrait doon ko génne nga xamante ni mooy cellule ba yóbbu ko garde fële rek euh, ca sûreté urbaine bu ndakaaru li ko waral nag mooy ay vidéo yoo xamante ni moom def na woon dina faat bakkanu soxna sii di Adji Sarr et puis tamit euh, kii di Assane Gueye moom it de son vrai no rek euh, risque un second mandat de dépôt ni kon lañ ko njëkkoon a tuumaal danañ ci tegaat beneen ngir taral li nga xamante ni kon moom mooy yooyu Sarr six mois dont trois mois yoo xamante ni rek ferme requis contre kon gone yi nga xamante ni ñu ngi doon manifester ñu jàppoon leen ca procès Sonko Mame Mbaye ñaa ñëw également ci li nga xamante ni rek mooy tamit étude euh, li nga xamante mooy perception et le coût corruption fii ci Sénégal mooy nag euh, DCMP muy direction centrale marché public décelé na ay irrégularités rejeté demande yoo xamante rek ci wàll wàllu immatriculation et puis manifestation à Bignona kii moom ñàkk na bëtam ba faw muy ab Abdoulaye Diallo semaine passée ku ne xam na ni bi Sonko doon wuyu ji ca tribunal ba amoon na ay manifestation amoon ca Ziguinchor ban laal bët ba kon mujj na ca ñàkk et puis hydrocar bi secteur privé sénégalais mi ngi joué sa carte gis nga ko Abdourahmane Ndiaye Sagam Elton ak tamit Omar Sow bu CSE dans l'actionnariat jëm rek ci li nga xamante mooy Ndar énergie ki lève deux cent cinquante millions de dollars yoo xamante ne kon dugal nañ ko ci et puis Ziguinchor tamit kii sa copine daf ko rek laaj gis nga ko intention euh, de le quitter rek pour un nootu mel ni kon sëñ Cheikh Tall mi moom def na njombe lu rëy. Ah, tribune ah, violence baaxul nan ko baax. Ah, ñëw ci parrainage ak code électoral bi Macky Sall kon veut àndoon bi mi ngi nelawal eh, gars yi nga xamante ni moom la nar a xëccoog ci la koy yooyee élection bu dee def tey bokk. ci troisième candidature am boobu ba tax na combat commun boo xamante ne cause commune la laaj curiosité autour kon des doublons ñëw kon ci parrainage bi nga xamante tamit également ñi ngi ko nar a laaj ci gars yi et puis après séisme mu ni kon Youssou Ndour mu àndal daal ci li nga xamante mooy levée de fonds euh, def nañ lu am solo collecté nañ presque lu toll ci cinquante millions de francs CFA ko kon ambassade bu Turquie te mbir maa ngay wéy ba léegi ci ambassade ba et puis tamit mi ngi sàkku rek ci Sénégalais yi ñu daal di dàq lépp loo xamante ni ay saagal laa ak wàllu fitna euh, jëm rek kon ci loo xamante ni kon bu sottee réew mi mën na cee bañ gis boppam. Mm-hmm. ñu dem ci Walf Quotidien. wàllu jàmm ba léegi ak ba léegi kilifa diine message yi ñuy yëkkati boobu ba léegi euh, mu ngi noonu rek sermon de religieux aux populations pourquoi le message ne passe pas ab laaj la boo xamante ni euh, ñi ngi koy laaj ak tamit gis nga ko appel Layène bi ci mujj porte-parole général des Layènes gis ngeen kaddu yi mu wax Ousmane Sonko ci jàmm ji Macky Sall moom it ba mu fa demee yëkkati foofu yooyee kaddu ko gën a yaatalaat. et loxo dafa mel ni rëccu na kàddu yi nga xamante kon euh, moo tax rek ñoom ña ngay boddi ñii di africain yi nga xamante ñoo nekk ci subsaharin di der bu ñuul ba tax na sax ñoom tiit nañ ba buñ sañoon dañuy ñibbi seen réew balaa ñu leen fay faagaagal mm, ñu dem ci les échos muy rek visite bi nga xamante ni Ousmane Sonko amaloon na ko démb ca Yoff mel ni ay dëgg yoo xamante ni Serigne Mamadou Lamine Laye moom porte-parole xalif général des Layènes wax na ko rek ci isoloir la maanaam dem ca mbañ gàccee ku ne xool kala nga da di koy voteel et puis tamit nee na ñuy prôné jàmm maanaam la paix di ko def rek te tamit que tes aussi euh, xaar ba bis mu ne ñu ànd ak Sonko noonu xaar ba bisu vote ñu dem vote ci jàmm ku ni fal ñu fal ko moo gën kon ñu nekk ci mbedd yi di fiye fii na et puis rapport Cour des comptes jëm kon ci wàllu gestion des fonds bi am na lu ci bees ndax gars yi ñu ngay défilé fa li nga xamante rek moom mooy ca division des investigations criminelles rawatina kon ñoom daas yi Mamadou Ngom ñaa bu daasu ministère des sports par exemple ak euh, Madeleine Suzanne Lo ak tamit euh, Léonce Zalé ñoom ñëpp jot nañ leen rek euh, kon déglu ci division des investigations criminelles comme ni ko procureur de la République waxee enquête bi bientôt kon mu daal di terminer su ko defee ñu xool fan la wanent di mu jëgg ga dem Aliou Cissé gis nga ko moom li mu bëgg mooy daal di des waat tamit yóbbu Sénégal fu gën a kowe fin guerre Ukraine bi nag gis nga ko Sénégal démb bi ñu def résolution ca Nations Unies lànk na ne kon duñ voté loolu danoo maandu daal comme ni ñu ko defee boobu ba léegi abstention la ñu def ñoom. Hmm, bés bi le jour. bés bi le jour ñëw na ci élection présidentielle yi donc euh, incertitude la ko daal di waxee ndax ba léegi rek xamul sax fan jëm kuy candidat ku ci war a bokk ak surtout ñi moom seen dara leerul muy Macky Sall Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade risque le forfait ndax rek ci wàllu justice ak tamit war ngaa bokk parrainage bi tamit beneen écueil la mooy jafe-jafe boo xamante am na ci le 24 février 2019 kon euh, at lu man ñeenti at woon Macky Sall bi ñu ko falee falaatee mu nekk président ak pour cent des suffrages et préfet Amadou ak tamit Amadou Mame Diop mel ni kon coup de pied des de Yewwi Askan Wi daal mere nañ leen bu baax baax ñëw na également yéen kaay bi ci li nga xamante mooy AIPS ak match bi nga xamante ne Ablaye Thiam bëgg naa jiite gon googee kuréel et Sonatel tamit chiffre yi takku trop 1455 milliards de francs CFA chiffre d'affaires sur les 5 ans yëgun crise bi. laas <laughs> quotidien lu mu rek sur la paix jàmm ji nga xamante ni kon am na fii ci Sénégal les Layènes sermon Ousmane Sonko démb gis ngeen ko kon muy ay kàddu yu responsable yoo xamante ni porte parole bi daal na koy wax rek ngir lu mën a indi dal ci réew mi bees loyer bi tamit ministre bi wax na ne alarba bii di ñëw kon la mbiri di entrée en vigueur président bu Tunisie. Mhm. moom it daal fu nekk ñu ngi ko fay songee ndax kàddu yu doy waar yi nga xamante ci wàllu terrorisme ak boddante. wax na ko tout euh, ba tax na kon nit ñi di ko ñaaw lu jëm kon ci racisme. Mm-hmm. loyer beeg jàmm ji ci Vox Populi. voilà baisse loyer bi donc effective à partir du premier mars bu ñu sukkandikoo journal bi les vérités muy dëgg yoo xamante ni porte parole xalif général des Layènes wax na ko kii di Ousmane Sonko et puis sélectionneur national di Aliou Cissé yéeneem ci Sénégal it mi ngi koy wax. source A moom. source A daal di ñëwaat rek ci Seynabou nekkoon na fi ancien doyen des juges nekkoon également OFNAC dafa mel daal ci li nga xamante ni mooy décision yi tukkee woon ci conseil supérieur de la magistrature altine bi passé moom dafa jàpp ne sax gis nga ko rek euh, rétrogradé dañ ko ko def ndax léegi euh, yóbbu nañ ko ca présidence de la république moom soxna soosu et plainte contre maître Sokone pour complot présumé dans l' affaire Adji Sarr mel ni un dossier délicat la yéenekaay bi waxee plainte bi nag déposé nañ ko par euh, Ousmane Sonko lui-même donc pour ne pas gêner ses avocats ndax comme ay confrères am yu ni mel moom moo tax kon Sonko moom moo ko def et puis tamit Sonko ñëw rek ci li nga xamante ni mooy directive porte-parole khalife général des Layènes Sonko promet euh, de euh, donc jëfe li nga xamante ni mooy conseil yi ko kilifa diine gi jox. ñu dem ci le témoin. mi ngi noonu muy député groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi kon a le président de l'Assemblée nationale ndax danoo jàpp ni daal moom moo leen tere def seen liggéey ndax am na initiative yu ñu jël ci li leen yoon may wante ba léegi mënul jëm kaw ndax looloo ko waral et puis tamit procès 31 membres passé fi donc boo saagadu doon leen dóor 3 euh, mois yoo xamante ni mënoon koo tëdd ci kaso bi hmm. Sud Quotidien euh, ba léegi rek ci l'état ci assemblée nationale daal dañoo jàpp ni gars ba leen falee ba léegi daal demut dikkut li ko waral nag mooy euh, xëy na ñoom dañoo joxoñ baaraam tuuma président bi nga xam ne dañoo jàpp ni rek moom mooy facteur bloquant bu boobee assemblée nationale. Hmm, ñu dem ci tàggat yaram continuer muy phrase boo xamante ni moom Aliou Cissé wax na ko kon ni rek doyalagul. ngir rek ay trophée ku yóbbuwaat Sénégal fa gën a yi ndax nee na sonnut ah, ñu bëri doon na jàpp ne il est fatigué kon nañ ko bàyyi moom Aliou mu daal ah, dem ah, loolu la daal di wax et puis tamit Europa League ah mel ni rek désillusion pour Crépin ak Jacob dafa mel ni démb ñoom waa Monaco dañ leen a daal di éliminer et puis Barcelone tamit à terre muy club bu jaaw bi démb dañoo demoon Manchester ñu wulli leen fa ba ñoom fi mu toll Espagne nañu dem du ah, duñ mënuñ koo sori puis yeneen yaa ngi ni tam dinañ ci ñëwaat ci congrès AIPS Balla Gaye ah, a xam naa tàggatu fële ca Paris. Mm, stade ak football ba mu ngi noonu kon na gars yi bàyyi di wax Aliou dafa sonn nag dafa moom leer na Aliou nee na sonn bëgg a continuer ak équipe bu Sénégal muy phrase bu mu yëkkati démb ba muy donc fële ci justement amal si kon ci jëm ci congrès bu AIPS bi ñëw ci Tëngéej FC tam yéen kaay bi ñëw na ci efficacité beeg yu ni mel Manchester United buuroo kon euh, Barcelone démb muy loo xamante ni lu am am solo la Sénégal vise euh, donc un sans faute jëm kon ci li nga xamante ni mooy euh, seen match bi ñu war a amal démb suba ak pays organisateur bi di Égypte seen troisième match la ci CAN U20. sunu lamb la ñuy tëjee. Zallo ah moom it refait surface gëj nañ koo gis Zallo mu nekkoon kon ay jamono écurie bu Fass ñëw rek ci li nga xamante ni mooy combat bi na a dox ci Reug Reug ak kii di Sa Thiès Reug na doon point donc saisir son game ah. Hmm. loolu la daal di wax ne rëg rëg warul. saisir bu mu jàpp ci ngemb li <laughs> c'est ça. <laughs> waaw maanaam maanaam bu ñuy bëree bu mu jàpp ci ngemb bi loolu la alaaji Malick. moom daal ma ngay wax Sa Thiès fexeel ba rëg rëg bu mu jàpp sa. bu mu jàpp sa ngemb mi ngi noonu. ci gàttal leer na merci beaucoup alaaji Malick jërëjëf Chérif ba ci kanam. analyse combat